salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu fan leen daan nuyooti ngeen ñëw nag tey seen émission waxtaan ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ni moo jara waxtaanee le sauveur muy livre bi nga xam ni 570 poèmes la ki ko bind nag di Mohammed Abdallah Thiam e sant tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag duñu def rek lu dul jox li nga xam ni moom mooy livre bi maanaam suñu imam imam Pape Hann tey ñu fas yéene waxtaan ak moom waxtaanee ko ak ki nga xam moom mooy Mouhamed Mouhamed Sarr waaye waxtaanee ko ki nga xam mooy tamit euh, suñu xarit kooku di sëriñ Xaadim Sène ak ki nga xam nag moom mooy tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy Moustapha Rasoul kon duñ def rek lu dul sant gërëm waaye nag di nuyu ki nga xam mooy imam Pape Hann fas yéene ko jox kaddu gi mu nuyu ñi nga xam ñooñu seetaan gannaaw bu ma ko waxee salaamualeykum. aleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mouhamadou Mokhtar nu ngi lay nuyu nu ngi lay ziara bu baax a baax. ñu delloo ziara euh, am mbégte bu baax a baax ci tey lii. lii ku la raw ci lii la rawee. Mm-hmm. dama lay wax ni la jamono mënul dox te doxunu doxin rasulullah réew mënul dox te doxunu doxin rasulullah mm-hmm. waaye itam nit mënul jag te jëlul ay jikko yonent bi alayhi salaatu wa salaam lépp mu ngi ci livre bi naka la ñoo soppee yàlla naka la ñoo bëggee borom bi subhanahu wa taala mais diggante yàlla ak rasulullah yi dafa am secret bu ci am boo xam ne ni ñi ko xamoon bariwul dañ ko leeral ci biir livre bi borom bi subhanahu wa taala dafa am lu nit ñi réer dañu ko réere moom borom bi subhanahu wa taala tey boo xoolee livre bi daa ko ci fekk dana gën a yokk sa cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax dama wax a démb nit pour nga bëgg ko mhm. il faut nga xam ko ba noppi mhm. mi ngi judd 20 avril moom Seydina Mouhamed alayhi salaam 570 livre bi di 570 poème le sauveur sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nag fii ak yaa ngi koy yëg yaa gën a tedd ko dul yow mhm. boo bëggee mu bañ laa réer na xool livre bi waxtaan le sauveur ki ko bind nag di euh, xale di ndaw euh, imaam loolu lu muy def si yow ndax dañu day faral di gis ni ñuy taalif di tàgg yonent bi sallallahu alayhi ay mag lañu daan doon mhm. walla nit ñi nga xam ni alquranul karim walla lañu jàng walla xam-xam dañu jàng xam-xam mais kii dafay ndaw bi nga xam ni jàpp nañu ni sax jàngul benn téere waaye téere bi jàpp naa ni am na baatin bu su nekk lu muy def si yow boo gisee ñu bind si nga li nga xam ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais si bindin bi. boo xoolee mu wax da xam ni am na keneen kuy mhm. yàlla moo wax ni. Mhm. am na ci sama gaañ yoo xam ne maa leen mosal ca ndox ma. wa saqihum rabbuhum sharaban tahura mhm. ndox ma nag boo ca xasee mos di nga wax luy jël xel loo xam ne da nga xel mënu ko xalaat. yàlla am ci gaayam yi ñoo xam ni moo leen tànnal boppam moo xam ne Abdoulaye Thiam alwaladu sirru abihi dañu wax ni doom mooy secret baayam mhm. baayam dundam yëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam la nekkoon intellectuel bu mal xaji Mahamadul Medun Thiam yéen yàlla yokk leeram yéen yàlla taasu ci barkeem amiin yaa rabbi lu ne wax na ko rasulullah bi alayhi salaam kon wala xarwa di mu am doom ji wax rasulullah mais livre bii baayam la jëkk a bàyyam mi waxoon rasulallahi taaha laka samaahu bi nuurika xat tazayyana li samaahu mhm. lu ne mu wax ko Seydina Muhammad mais bàyyam bi la njëkk muy génn àddina moom bàyyam bi bàyyam la njëkk a jommal rasulallahi taaha laka samaahu alaaji bi du nee na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulallahi بنورك قد تزينت السماء وانزل فيك قرآن كريم كتاب للأنام بنجاو صلى الله عليه وسلم كن لو يكن على بخوني سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي ليلة الظلماء يفتح البدر ñi ma bàyyi ka sama gaa yi daañu ma fàttaliku bis bu ma fi bàyyi ko bis bu ñu demee ba problème am kon ndaw li tëb wax lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na koo xam ne bu la boolewul ci boppam mënoo ko wax leneen li mm-hmm. kon da jàpp ni Mouhamed Abdoulaye Thiam dafa takkoog rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku la raw mi ngi la rawee ci cofeel benn mm-hmm. baykat arab dafa yonent bi ni ko ni ma mel ci yow du ko seedaloo kenn wallahu yaalamu annani ahwaak yàlla xam ne bëgg naa la mm-hmm. yàlla xam na ni bëgg naa la. Mhm. keneen ni ko wallahu yashhadu am na ni ahwaaka yàlla seede na bëgg naa la yow rasulullah ji. te te te yonent bi te rasulullah ku ko way benn way benn benn benn poème rek benn ra benn satro benn bëyit. Mhm. benn rangé. Mhm. nga def ko ci rasulullah sa yàpp yaram xaram na safara. macha allah mu def ko 570. macha allah kon kooku 570 euh, am na lu koy deey le sauveur damay dem ak sëñ Xaadim Sène euh, sëñ Xaadim euh, defe naa ne livre bi bare na loo si gëstu loo si xam ndax bis bu nekk yaa ngi ci lan nga si mën a indi si li nga xam ne moom mooy le sauveur. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. ñoo ngi nuyu tabaarakala ñi ma bokkal plateau bi di la ci jiital yow di jëm a. ñu ngi lay fay baax a baax di kontaan. macha allah di nuyu sama xarit imam Pape Hann bu baax a baax di ko ziar di nuyu bu baax a baax sama rakk sama xarit Ahmed Sarr di nuyu tàggatu fondation Kër Rasoul macha allah Moustapha Rasoul. Euh, Dijé. Mhm. li ma lay wax rek mooy ma damaa yéemu te du dañ di yéemu ci livre bi tabaarakallah. Mhm. dama yéemu te du dañ di yéemu ci livre bi. lu lan moo lay yéem te dinaay faral. am na su ma lu ma fekkee. Mhm. Eh, léeg-léeg nga tuur xéwal. Mhm. si suñuy wax livre bi wala ñu dugg si. ñu ñëwal si ah, livre bi. Dijé dafa am lu ñuy wax ah, wax yu ak ilham. Mhm. bokkuñu wax yu yonent lañ koy def. wax yu. Mm. yonent lañ koy def. jibril moo ñëw ca ne yàlla nee na. dama ko daan defee sunu waa ji Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu na ci moom vingt quatre mille fois. këddun alfan la si daal maa wax mhm. waaye ilham ku tax ak yàlla la ko yàlla hmm. kon appul aajowul mag ak ndaw. déedéet liir bu ndaw bi yàlla mën na ko ilham. wallaahi Mohamed Abdallah Thiam. Mhm. cafeeram ci rasulaay la ko yàlla fay. cafeeram ci rasulaay hmm. la ko yàlla fay. yàlla dafa ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam bu demee ci xare ba gañe bu gañee sallallahu alayhi wa sa toog ak yàlla yàlla ne ko yëg xare bi maa ko gañe yàlla ne ko maa xare bi <laughs> rasulullah ne ko noo ko gañe mu ne ko maa ramayta is ramayta walakin allah rama jamono boo sànnee xamul sax fu muy daal waaye boo sànnee man maay jam man yàlla mooy orienté mooy <laughs> boo ubbee sa gémmiñ man maay wax man yàlla subhanahu wa taala sayyidina Muhammad boo yëngalee sa loxo man maay agir rasulullah bu yëngat yëkkatee tànkam Mustafaa dox alayhi salaatu wasalaam ñu mel noonu nag ba tey ñoo ngi fii mm-hmm. am na ci ñoo xam ne bu ñu demee ba yëkkati seen kaddu. Mhm. yàlla moo leen di wax loolu. bokk na ci Mouhamed Abdallah Thiam. parce que lii. 570 mhm. point bi ci yonent yàlla Mouhamed alayhi salaatu wasalaam. Oh. nit am na doctorat. te Mouhamed Abdallah Thiam rek ci réew mi la dëkk. sama yaay ko jur Alaaji Alaaji Mbirun Thiam. Mhm. bul fàtte ne Mbirun Thiam ak Oumou Sall moo jur ñoo bokk benn baay. muy sunu soppe di sunu xarit. Mm-hmm. mu jàngee fii jàng tubaab. Mm-hmm. yaa ngi dégg am bagam. Mm-hmm. jaaxalu fi nit ñi nag ci wàllu njàng. tabaarkalla kon nga xamante ni am na leneen lekk ci ginnaaw nit am na fi doctorat dàq da ko jàng foofu te mënul def ñaari poème kon nga xamante ni am na leneen. lu ne ci ginnaaw wala ñaari tiit yu mat. waaw kay waay kon xam nga am na leneen ne ci ginnaaw. <laughs> macha allah. li wolof di wax naan bëgg buur baax na waaye buur bëgg laa ko gën. jafeelam ci rasulilah la ko yàllay fay. rasulilah daf ko ne yow da nga ma bëgg waaye ñëwal nag léegi maa ko la ci sama bopp. Mm-hmm. di ko jàppale nee naa ko jamono boo téyee. Mm-hmm. sa bi sa bindukaay. dem bay bind rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala wax li ngay bind. macha allah sallallahu alayhi parce que parce que bu ñu demee ba ci biir nag. Mm-hmm. bu ñu demee ba gëstu poème yi. di nga di xamante ni sallallahu alayhi wasallam moo ko doon dicté. moo ko doon dicté waaw lu lu lu lu yéeme la lu doy waar. lu doy waar la ñu ñëw nag si ki nga xam moom mooy eh, oustaz eh, Ahmed Sarr maa ngi lay béggee oustaz di la nuyu waaye eh, lan nga mën a wax si li nga xam moom mooy le sauveur alhamdulilah wa ala wasalaatu ala nabiyi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil atqiya wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi din jërëjëf sëñ Maxtaar macha allahu si question bi tabarakallahu livre bi nga xam ne mooy le sauveur nga xam ne def na juróomi téeméeri poème ak juróom-ñaar fukk lépp jëm si Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk livre boo xam ne comme ni ko macha allah euh, suñu ustaaz suñu kilifa ustaaz Pape An waxee. Mhm. lépp loo bëgg a xam si Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. di tabaarakallahu di livre bu am leer di loo xam ne tabaarakallahu lépp loo bëgg si xam yàlla lépp loo bëgg si yegg si Sayyidina Muhammad moo ngi si. ki ko def nag tabaarakallahu Mouhamed Abdallahi Thiam def lu rëy. parce que temps bi ñu jox yeneen bi su ko neexoon mën na ko def feneen. dëgg am na temps bu mu joxe feneen waaye bu jël waxtoom yépp jël taawam yépp jox ko Sayyidina Muhammad alayhi salaam te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom heure boo waxee rek yàllaa ko wax la ndaxte wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa kon heure boo waxee yàllaa ko wax la moo tax képp kuy wax jëme si yeneen bi xamal ne waxoo waaye yeneen yàlla Muhammad mooy wax ndaxte benn waykatu arab def ne xamatuma li lan laay bind ndaxte li ma war a wax si sal si sallallahu alayhi wa sallam xel mënu ko natt xool attanu ko ci bit mënu ko bind moo tax mu ne min ayna abda'u fi madixi muhammadin la chiaru fiihi wala al aqlaamu ñu ne ko waaw ki ngay jooy kan la mu ne huwa saaxibul xuluqu rafi ala mada nee na huwa qaimun lil muslimina humaamu hmm. kooko omma jullit ñëpp koo koy ki ñu war a roy ndaxte kooku su ngeen ko bëggee yàlla bëgg leen su ngeen ko toppee jub wa atiu allah wa atiu rasul wa in tutiuhu tahtadu kooku sallallahu alayhi wa sallam ci Mouhamed Abdallah Thiam dafa xam secret yeneen ci bi ndaxte li tax ma wax ne loolu seen maxtaan lu tax waaw xam nga man Serigne Touba radiallahu taala anhu def na nit ñëpp jug nañu uti yeneen yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam wala nit ñëpp jug nañu ngir uti lu baax mm. ci li lu baax loolu ñuy ut kenn rek moo koy joxe si àdduna moo lay jox ba nga doyal mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne fadli musri'ayna lahu waaye nag wal fadlu inda rasulillahi qarraan ku dul moom du joxe dara Mouhamed Abdallah Thiam ba mu xamee ne kii mooy waa ji mhm. mu jël àdduna jël àllaaxiraam jël lépp jox ko kooku yéen a sallallahu alayhi wa sallam ki bind nag le sauveur muy eh, Mouhamed Abdallah ah. Thiam eh, mhm. moom mi nga xam ni taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul la Euh, di xale di daw mais dafa taalif si en français maanaam si tubaab si nasaraan euh, mag yi dañ doon bind si arab mhm. euh, maa ngi lay dégg si sa waxtaan nga naan ku si nekk ak la làkk ba nga ba nga naam wala ba ba nga mën mhm. war nga si tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nga ñëw si loolu bala ñuy déglu li nga xam ne moom mooy li xam mooy la naissance le fait que moom mu mu tàgg yonent bi si si tubaab si nasaraan mhm. te livre bi ma am lu ma si xam sant si baatin. Mm-hmm. ñëwal si loolu. bala ñuy déglu laa ne sax jërëjëf si Mouhamadou Mokhtar euh, Ahmed am nañu mbégte. sëñ Xaadim bég nañu si Mouhamadou Moustapha. Mm-hmm. xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Mm-hmm. dafa waxoon euh, dafa waxoon kenn kenn ci saxaaba yi def na xasaan la. ni ko mënuloo nekk sama secrétaire. mu laaj ko lu tax mun ko parce que déggu dégguloo langue yëpp. te dégguloo langue yëpp. <laughs> <laughs> du du. du da nga war a dégg arab rek pour mën a nekk sama secrétaire. war nga dégg anglais war nga dégg français war nga dégg chinois maanaam il faut que nga dégg langue yëpp pour mën a nekk sama secrétaire wala suuf. aleyhi salaam loo loolooy tegtal ni. Euh, yonent bi ñëpp moo see moo leen bokk jaboote. Mm-hmm. alayhi salaatu wa salaam. sëriñ bi dafa dafa waxoon ni euh, way arab la daan way. Mm-hmm. waaye mu ni léegi damay ñëw def ko wolof. ndax damaa xam ne nit mm-hmm. na kuy bëgg naa xam li na ci biir téere yi. waaye da koy jural coono pour mu xam ne ni ci biir téere yi. Mhm. xale bu juddoo fii Sénégal olof jur ko ndeyam bi olof baayam di olof. Mhm. buy wax dana ngeen baal ma sama olof leerul. dëgg <laughs> français la jàng. xam mhm. ne wax ni. siiroo sayra zamanikum dox leen seen doxinu jamono. dox leen seen doxinu jamono. ragal piiti lu xañee wërsëg da xam nga lu ko xañee. Mm. cër. kii taalibu Cheikh Xadim la mhm. sëriñ Bambaay sëriñam mhm. waaye dafa bëgg mag ñëpp parce que mag ñi daaw ñu taasu daaw ñu parparloo daf ma wax lu ma doy lu ma yàq mu ni ma gàmmu dama ci Seydi Seydil Xaaji ma dafa ma dafa am lu ma donnale ci gàmmu bi su gàmmu mhm. dafa am lu ma ci donnale ndax cofeel gi mu am ci Seex Sidil Hadji Malick te njabootu Seexul Xadim la kon maa ngi ñaan ëllëg ñi Sëriñ Bambay tiitaroo yàlla boole ko te ñooña amiin am naa ci yaakaar ndax taalibe Seexul Xadim Sëriñ Bamba ne at mi douze mois la six mois yi damay tagg rasulullah yeneen si damay julli ci rasulullah yeneen six mois yi ma tagg Seydina Muhammad at mi at mi jeexul salaatu sitta bi mataxi sitta taati batta maati saa yi kon Cheikhul Khadim radiallahu anhu premier janvier ba 31 décembre nee na noppalu ma ci Seydina Muhammad mu am taalibe bu mel ni Mouhamed Abdoulaye Diagne wax rasulullahi waxin gu jéggi dayoo. Mm-hmm. donc livre bi ma koy xool damay yenn saa yi ma xool ci benn phrase euh, yenn saa ma lu doy waar ci tey dafa am leer xoolal. Mm-hmm. dafa am leer. Mm-hmm. billahi su ma ko yëgul woon. du ma ci wax. sama xarit la ah. moom sama xarit la. moom Rasulullah moo booleeg moom. waaye lii mu bind. Hmm. man su ma ko yëgul woon. Hmm. du ma ci wax ndax man Rasulullah doo ko laa bëgg. waaye livre bii livre leer la. Hmm. maa ngi ñaan ku bëgg Seydina Muhammad. def tout. pour gëstu ko ba gëstu livre bii dana yokk sa cofeel ci Rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam dana la dolli leer. dana la jàngal. da nga am beneen relation bu boole dox sa diggante sa borom tey di nga xalaat sa premier nuyu biir bàmmeel dara du la fa wéttali lu bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam euh, wala oustaz Pape Hann mën nga teg foofu sa loxo ñu dem seetaan li nga xam mooy poème numéro un de la naissance juddu sang-sang yi Seydina Mohamed dal soit sur le plateau poème sur le prophète numéro un la naissance bismillahi rahmani rahim En ce jour où vint au monde le Sauveur de l'humanité, Lope se proposa de faire la médiation entre le jour et la nuit, pour l'accueillir de la façon jamais existée sur terre. Ses délivrances étaient sans commune mesure, sans fatigue ni douleur, et voyons la première césarienne s'opérer sur la personne de Saïda Amina bint xamante ne Mouhamad Abdallah Thiam def na ko ci Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mooy la naissance muy waxtaani juddu gi alayhi salaatu wa salaam nee na bis bi Seydina Mouhamad alayhi salaatu wa salaam juddoo bàyyi Fatimata bint Rasul nee na muy juddu guddi gi ak bëccëg bi daf may di doon xuloo ak di xëccoo ndeysaan ak a xëccoo gi ne man maa war a accueillir yoon ci Yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa bëccëg bi ne man maa war a accueillir rasulillahi alayhi salaatu wasalaam parce que xam na ni bu Moustapha juddoo ci guddi guddi mooy gën bëccëg mhm. su Moustapha juddoo ci bëccëg bëccëg mooy gën guddi mhm. sallallahu alayhi wa sallam léegi nag médiation nag léegi am nag léegi mhm. macha allah tabarakallah moom président fondation Keur Rassoul moom Abdoulaye Thiam nee na ci point bu njëkk bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi judd ci diggante guddi gi ak bëccëg bi moom la ñuy wax la séparation de la nuit et du jour moom la ñuy wax alfalaq yàlla mbaa maadu. heure boobu heure ijaaba la. ijaaba président nee na. Hmm. soppe nabi nee na waxtu woowu la Seydina Mouhamed judd. Hmm. sallallahu alayhi hmm. parce que su juddoon guddi rek guddi dafay gën bëccëg. te guddi ak bëccëg ñoom ca yàlla nag. sallallahu alayhi wasallam bay Fatmata bint Rasul ba nañ ko sax macha allah tabarakallah su euh, man man ak sa baraka ju baax bi Ahmed Sarr. macha allah moo doon bind moom tabarakallah mu ne yow mu lezi. يوم الذي جاء الفجر يوم الذي جاء الفجر يوم بس الذي باب اسم موصول من أسماء الموصولات اسم موصول الذي جاء ذكر مم صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الليل والنهار ليحكم لا متعلل دافاي نصب مدار ليحكم médiation am na. diggante guddi ak bëccëg kenn ku ne yaa ngi taxaw. ne man maa soxla Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam man maa soxla rasulillahi alayhi salaatu wa salaam mm-hmm. yàlla am maanute gu toll nii subhaanahu wa taala azakamal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam judd ci diggante guddi ak bëccëg li yaxkuma li yaxkuma bayna layli wa nahaari li yaxkuma bayna layli wa nahaari li yaxkuma bayna layli wa nahaari kenn du bàyyi Fatima di bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam bàyyi Fatima di bintu wa kaana فضل الله عليك عظيما للترحيب أفضل البشر ورنت xoolal tarxiiban ma ngay accueillir afdalil basar ki nga xamante ni sallallahu alayhi wa ki nga xamante ni ku yàlla fondation Kër Rasoul ma ngay joobe juddub Seydina Muhammad sallallahu xuruju rasulillahi bi batni ummiha xurujan yasira nee na xuruju rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na ba muy génn ci yaa président fondation Kër Rassoul Mamadou Abdoulaye Thiam ci point bi numéro un la naissance. alayhi salaatu wasalaam nee na jour boobu ci la njëkk Pape ci la césarienne njëkk am ci kaw suuf njëkk am ci kaw suuf boo xam ne amul métit mhm. césarienne boo xam ne amul ñaw césarienne boo xam ne amul tëj amul dara dara dara dara. set wecc moom sallallahu alayhi wa sallam mu gën xanaa xam ne ku dul Moussa ku dul Moustapha feneen nga jaar. Mhm. ku dul Moustapha. Mhm. président fondation Kër Rassoul nee na. Mhm. Mohamed Abdoulaye Thiam nee na ku dul Moustapha feneen nga jaar. Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla opéré yaa amina mu génn génn bu set tabaarakallah. biduuni taabin. biduuni taabin ci lu amul benn jafe-jafe. wala mashaatin ci lu amul benn benn benn benn benn loo xam dafay indil coono yaa amina. wala dayxin. ci lu amul benn xat-xat. awal man nara bi ci kaabatu jour boobu la ñu njëkk gis nag césarienne boo xam ne boo xam ne amul tëj pap an césarienne boo xam ne amul ñëw césarienne boo xam ne doo xam ne fii nit jaar na sallallahu alayhi wa sallam bint rasul alayhi salaatu wasalaam ñu dem euh, continuer ba tey poème bi nga xam ne moom mooy la naissance la suite délivré son premier geste fut de pointer l'index au pour glorifier témoigner de son unicité et accepter son grade de messager d'Allah. voilà ñu dem ak ki nga xam moom mooy nag euh, oustaz Ahmed Sarr euh, deuxième partie poème bi lu mu wax. waaw tabarakallahu sëriñ Maxtar jërëjëf macha allah comme ni ko suñu mag sëriñ Xaadim leeralee si première partie bi macha allah waaye sallallahu alayhi wa sallam Mouhamed Abdallah Thiam def ne ba mu ñëwee ba mu génnee si biiru yaa Amina ba noppi. li mu def moom yeneen ci yàlla Muhammad mooy. alayhi salaatu wa salaam rafaa sabaabatahu l-yumnaa ila s-samaa tamdiixan li rabbihi dafa yëkk ci baaraamu ndey jorom bi jëme asamaan. ba pare na tagg suñu borom mooy kañ yàlla subhaanahu wa taala ba pare na nangul yàlla kennam nga ba pare nangu message maanaam nangul ak yeneen itam moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tabaarakallahu loolu doon lu doy waar li nga xam ne macha allah kenn mënu ko misaal. ndax kéemtaan kéemtaan yi si nekk. ñu dem pour immédiatement pour le bénir. Le Seigneur le ravitailla de sa lumière divine et le gratifia de tous les grades pour qu'il nous revienne en sauveur dans ce monde qui était voué à l'échec. Cette naissance est sans doute la renaissance et l'espoir de toute existence. sëñ Khadim troisième partie baa ngo waaw bismillah tabarakallah président fondation Kër Rasoul soppe nabi Mohamed Abdoulaye Thiam ma nga wax keroog ba Moustapha sallallahu alayhi wa sallam juddoo mu bàyyi Fatimatu bint Rasoul alayhi salaatu wasalaam ba mu kennal yàlla subhanahu wa taala kennal borom bi subhanahu wa taala Jibril daf ko jël jox ko suñu borom subhanahu wa taala mais bu ko joxee suñu borom suñu borom def ci moom def ci moom wan nangul koy ak yonentam mhm. nangul ko ak gën di mindeefam moom sallallahu alayhi wa sallam soppe nabi di wax ci poème bi ba tey la naissance mi ngi wax juddug Seydina Muhammad boobu alayhi salaatu wasalaam lépp lu deewoon ci la judduwaat mm-hmm. lépp lu deewoon mm. ci la judduwaat sallallahu alayhi wa sallam parce que dafa mel ni jamono benn jamono kese la lu jiitu Seydina Muhammad lëndëm la mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. lépp a deewoon waaye Moustapha dafa judd sallallahu alayhi wa sallam bàyyi Fatimata bint Rasul président fondation Kër Rasul Mohamed Abdoulaye Thiam nee na juddug Seydina Muhammad alayhi salaatu nee na dafa dundal lépp lu dee woon. Mhm. macha allah moom la tëjee poème bi. moom la tëjee ah, nag saa bu tëj nag. Mm. ma nga a ab allahumma salli. ala sayyidina muhammad ma ngay def li nga xamante ni moom la yàllay def. Mm. subhanahu wa ma ko ciy jàppale. sànq yaa ngi wax ci sa euh, ci bi la Mouhamadul Mokhtar waxee ci poème bi nga xamante ne moom it Abdoulaye Thiam moom tànn tubaab en francais pour def ko ci yonent yàlla Muhammad. Mm-hmm. alayhi salaatu wa salaam. bàyyi Fatimata bintu Rasul làkk yëpp benn la ca yàlla. benn la mm-hmm. làkk yëpp benn la ca yàlla. toutes les langues se valent. Mm-hmm. au niveau du Seigneur. Mm-hmm. làkk yëpp benn la ca yàlla. liñ naan liñ naan dégg na làkk yëpp. ok bàyyi sallallahu alayhi wa sallam dama koy indi xadis la dama koy wutal lay daay. Uh-huh. Moustapha dafa ne fuddaltu alal anbiya bi sittin. benn rek laa ciy wax. mooy. yàlla gënale na ma ak yonent yi ci juróom-benn mbir ñu ne ko ban mu ne uutitu jawaami al kalimi luy kàddu yàlla omatal na ma. luy kaddu yàlla amatul xam nga Seydina sallallahu alayhi wasallam pap boo ko làkkee euh, pël Fuuta mu gën la ko dégg mm-hmm. rasulullah mm-hmm. billaahi mm-hmm. nga làkk ko njaago mu gën la ko dégg nga làkk ko anglais mu gën la ko dégg mu gën la ko dégg nga làkk ko français mu gën la ko dégg jinne yi ñëw mu wax ak ñoom malaaka yi ñëw mu wax ak ñoom jamaadaat yi ñëw mu wax ak aj ajmawaat yi ñëw mu wax ak ñoom ñëpp dégage mu wax ak yàlla c'est le sauveur le messager alayhi salaatu wasalaam moom yonent bi sallallahu dafa mos a ànd ak Anas ibnu Mhm. nee na man gëm naa rasulullah mhm. bëgg naa rasulullah liggéeyal na Seydina Muhammad fukki at ak benn anas mhm. min xuddaami rasulillahi anas nee dama ànd ak yonent yàlla Muhammad ci làkk yëpp laa wax ne Moustapha sallallahu alayhi wa moo peeg làkk yëpp loo ko defal mu nangu alayhi salaatu wasalaam anas ibnu malik ànd ak yonent yàlla Muhammad ñoo ngi ci àll jékki-jékki anas ak rasulullah dégg benn picc sab sabat sabat ni anas ibnu malik hal taarif maa yaqulu haza tayr anas ne ko allah wala rasul am la aalam est ce que xam nga si picc bi lu muy sab anas ne ko yàlla ak yonentam rek ko xam kenn du Seydina Muhammad kenn du moom billaahi kenn du moom mu ni ko mhm. ma yeggali xis yeggali rasulullah salaam ne ko picc bi dafa gumba du gis te fi mu toog ni dafa xiif wa yaqulu ana ama wa inni jaayoon mhm. moom mi dafa gumba te dafa xiif mu ne yàlla wërsëgal mu ne ko loolu la sax. ñu toog tuuti pour nga dégg ma ci jamono. Mhm. mu mel ni benn criquet wala benn lëppaa lëppaalëpp. Mhm. ñëw rek ci booru gémmiñ gi booru bet bi. Mhm. ne ci booru gémmiñ picc bi sàqa bi sàqa bi waat sabat sabat sabat. sallallahu alayhi wa sallam waxaat Anas lam ko laajoon est-ce que xam nga picc bi lu muy sab mu ne ko yàlla ak yonentam dañ dogg xam mu ne dafa ne subhaanallazi man laa tudd naa sell buur bi nga xamante ne wax dëgg yàlla du fàtte mukk mukk mukk ko xam ne mi ngi koy mi ngi koy tawat ay soxla kon nga xamante ni Moustapha làkk yëpp la dégg sallallahu alayhi wa sallam kon tubaab bii mu tànn nii def ko tabaraka la pour jamono parce que jamono dafay dox Pape mi koy wax sànq doxal sa jamono jamono ngi dox mm-hmm. occidentaux yaa ngi fi américains yaa ngi fi mu langue tubaab mu nekk langue boo xam ne c'est à la portée presque de tout le monde mm-hmm. comme ça doob da nga yóbbu ji mu jàng bi tubaab pour ñëpp mën ci am accès tabaraka fa tabarakallahu oustaz Pape Hann dégg la naissance lan nga si mën a yokk jërëjëf Sidi Mouhamadou Moukhtar sëñ xaarit jërëjëf Cheikh Ahmed Sidi Mouhamadou Moustapha euh, sànq maa ngi naan yonent bi xafaali sa sa Zeyd ibn Thabit mm-hmm. la Sidina Mouhamed waxoon Zeyd ibn Thabit mm-hmm. euh, ne ko mënoo nekk sama secrétaire mm-hmm. parce que dégguloo langue yi waaye point li bi ngeen décortiqué léegi yonent bi alayhi gi jamono da keroog bi mu gën a àddina jamono daa puukareewu mhm. jamono dafa jaayu mhm. jamono yëkkatiku mhm. ndax dikku ga rasulullah borom Ahmad Busayri Mouhamed Abdoulaye Thiam dañu keroog bi Seydina dafa yëkkati baaraam ba moom rasulullah tataba bi kaw suuru wa tasmaaw nee na Abdul Mutalib dafa ñëw ci Amina ne ko ana liir bi bi ka aliyaaw bada aliyaaw Abdul Mutalib ne Amina ana liir bi Amina gestu ne ko gisuma liir bi mu ko bàyyee ma dee moo tax nga bëgg bi te tabaaha Abdul Mutalib dëkk mën wutali Amina am lu ko téye ne ko lii baa nga aljanna malaaka yaa koy aayoo ba pare ko ji te tabaaha kon yonent boobu alayhi salaatu wasalaam keroog bi mu gën a àddina te mm-hmm. tabaaha puukarewu na mm-hmm. te tabaaha tiitaru na mm-hmm. bi ka ci yow rasulullahi al usulu jamono waaye jamono dafa am fu mu ne woon nga xool fii Seydina Muhammad ñëw jamono yëkkati ko wa tas mu bi ka aliyaa u beneen wéy ko arab alxaj Mouhamadou Mansour ne ko bi mawlidika dunyee zëhët wa tazayyana wa daanat li arbaabil am kulli amaan mu ne ko addunye addina zëhët puukare wu na wa tazayyana te taaroo bi mawlidika ci sa juddu gi yow la waaye Mouhamed Abdoulaye Thiam boo gisee poème boobu la naissance li mu indi cee ndeyam di ko jur te Amina mhm. wax nañu léegi nga nga décortiquer léegi ne Amina ciy ko alayhi salaatu wasalaam a yëm ci mooy mooy bis ju la naissance ku ne war na ko lii ku ne parce que Amina nee na bu jot seconde bu jot gis naa kimtaan mais li ma gën a yëm ci sama doom ji mooy ci bi mu gënee addina mooy la naissance bi mu jottoo moom yonent bi nii rëba tiim ne la ca biir miir wa am na ay fas yu cay ñeexal ne la ca biir miir wa am na kàddu gi wax ak man xam nga lu ma kàddu gi wax daf ne ma mboolem yonent yi ku ci ne la yàlla joxoon nangu na ko jox na ko sama doom ji Muhammad Rasulullah war a waa xatibu Bagdaad bi ann aminata xaala lamma wadaatuhu alayhi salatu wasalaam raaytu sahabatan azimatan laha nuuru asmau fiha sahil alxayli wa xafaxaanu ajnahiyati wa kalaama rijaali xataa xasiyatahu wa xuyiba anni fa sami'tu munaadiyan yunaadi tuufu bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi jamii'i al-ardi wa a'riduhu ala kulli ruhaniyin min al-jinni wal-insi wat-tuyuuri wal-wuxuushi wa a'tuhu xalqa aadama wa ma'rifata shifiir wa sujaata nuuhin wa qullata ibrahima wa fasaxata saalihin wa xikmata luutin wa busra yaquba wa sirata muuse wa sabra ayuba wa taata yunusa wa jahada yushaa wa sawna daawuda wa waxaara ilyaasa wa ismata yaxya wa xubba daaniyal wa zuhda isa alayhi salatu wasalam yowmu alladi jaal fajru juddum nga la ñuy joobe si na Muhammad Abdoulaye Thiam mi la message mooy tey ngeen xam juddu rasul yowmu alladi jaal fajru mhm. li yaxkuma bayna layli wa nahaari guddi bëccëg kat ñu ngi àtte woo keroog bi Seydina Muhammad juddoo yow. yawmu lazi jaa alfajru. yow mun mooy benn bis ba nga xam ne jaa dikk na alfajru fajar. yaxkuma bayna layli wan nahaari. dina fajar kat moo ñëw pour àtte diggante guddi ak bëccëg. li tarxiibi afdalil bashari. ne ne ko soyez bienvenu ak si la jàmm yow Muhammad rasulullah. tarxiiban jayidan musaa. Mouhamed lay càmmee bu guddi na woon ci man lay ñëw guddi na ci man lay ñëw de fajar bëccëg ne ko ci man lay ñëw. parce que bu ñëwee ci yow guddi da koy tiitaroo ah. bëccëg ne ko du ma ko nangu ci man lay ñëw guddi na ko yaa koy tiitaroo bëccëg ne guddi yaa koy tiitaroo Mouhamed Abdoulaye Thiam bi xam nga lu xewa ah. fajar moo ñëw ci seen diggante ni xam nga lu xew bàyyi leen ma jël ngelawul simal bi man la. xuruju rasulullahi mu Abdoulaye Thiam ma ngay jóobe juddu Seydina Muhammad. Mouhamed Abdoulaye Thiam nee na yàlla bàyyi ba guddi kii dem bëccëg bi bëgg ñëw ci diggante bi ci la Seydina Muhammad ñëw. xurujan yasiran biduni taabin. billahi. wala mashaatin. moom Amina. wala dayixin. awal ma nara bi oh. ci kaabatu keroog ba mu juddoo. billahi Seydatuna آمنة بنت وحب حينما خرج رسول الله سبنا بيجي سنون مونيتين لو بياندو في بداية لكم المختار مو يونت بي عليه الصلاة والسلام غني عدنا بي دفا غاتيل كوم سجوب نيسان غني عدنا بي محمد عبد الله كام نينا maanaam bég bi ci yàlla bég bég parce que dafa nekkoon ak yàlla ay milliards d'années di wéttali ko di wéttali ko ak borom bi subhanahu wa taala looy dégg looy xalaat yàllaa ko bind ci leer rasulullah awul man xalaqa allahu taala nuur yi wa an sidna omar radiallahu anhu anna mawlana rasulullahi salallahu alayhi wa sallam qaala muqatiban la yaa omar atadri man ana ana allazi xalaqa allahu qabla kulli shay'in nuuri fa sajada lillahi fa baqiya fi sujudihi sab'a mi'ati ami fa awwalu kulli shay'in sajada lillahi nuuri wala faqra yaa omar atadri man ana ana allazi xalaqa allahu taala arsha min nuuri wal kursiya min nuuri wal lawxa min nuuri wal xalama min nuuri wa nuur absaar min nuuri wa nuur al aqli lazi fi ruusil xalqi min nuuri wala faqra dama koy résumé hmm. li tax ma jàdd foofu mooy ni mu nekkee war ak borom bi subhanahu wa taala yàlla di ko xool di bëgg ci moom yàlla di ko xool di bëgg ci dem ba mu yàgg am fi ko yàlla jaarale kiiraa ya ma ko jaarale da koy wan naa wax gaa ñu ne leen doo ñoom ñoom duñu yow hmm. bokkul génn na ci juróom-ñett téeméer at yi mosu jotal yàlla te te siggiwul mm-hmm. sab'a mi'ati aam toppul bi bi muy topp borom bi subhanahu wa taala ci aala bu yàlla dugg mm-hmm. topp ko ci laahoor bu yàlla kiitee foofa yun ci yàlla Muhammad topp ko ca leer ga yàlla di ko xool bëtu ñeewanteem ga mais dem ba mu yàgg na yàlla indi ko xool malayka na fi jinne yi na fi yeneen nekk téefi na fi yàlla def ko muy nit Muhammadun basarun laa kal bashari nit la may melul ni nit ñi mais bi ko yàlla dugalee ci ay roxum musul jaar ma ndigg la musul jaar ci ndigg lu musul mooy yàlla mm-hmm. waaye yàlla nga mën maa dégg wóoru ko xam na fi mu ne ñoom ñaar dañu lekkoon nga mën a dégg yàlla namm ko mm-hmm. namm gi ko yàlla namm moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga tàmbali ci Adnaan ba ci Abdullahi. Mhm. ma yéeg Abdul Abdullahi ko Abdul Mutalib Hashim Abdul Manaf Xusay Kilab bi mu ñëwee ba ci Abdullahi yàllaa nga yàkkawle ko di yàkkamti bu waa ji ñëw. Mhm. parce que li mu namm ci moom pour àdduna bi jag il faut mu ñëw. Mhm. war a keroog gane àdduna bi laa naissance il faut nga lire ko. ca laa naissance il faut nga lire ko. war a keroog bi mu dikkee moom rasulullahi dafa dikk yàlla dafa dégg. il faut il faut nga lire ko. laa naissance non bi mu dikkee moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom bi subhanahu wa taala dafa am lu déclenché ci moom. alayhi salaatu wa salaam waaw. <laughs> waaw lu déclenché ci moom lu mu ci biir lii. du ma ko wax du ma ko wax. du ma ko wax mooy bég gi yàlla bég ci dikku yonent bi alayhi salaatu wa salaam. kon keroog bi mu juddoo. Mm-hmm. jamono dafa tiitaroo. ñu yokk leeraay jant bi. Mm-hmm. yokk leeraay weer wa. tëj buntu safara ya. ubbi buntu aljana ya. dëgg nag tàmbalee feeñ keroog ñu gën a àddina ci la dëgg tàmbalee feeñ ci la neen dem. Mouhamadou Mokhtar jërëjëf euh, ki nga xam ne mooy oustaz Pape Hann defe naa ni fi nga génn euh, naan baax na comme ni ko xale yi di waxee foofu baax na euh, duñ def rek lu dul benn tour de table Moustapha Rasoul ki nga xam ni moom mooy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii si GRM groupe Rasoul Média mm. Moustapha waxtaan bi déglu nga ko mm. ban impression nga si am en une minute mm, waaw loolu sant si yàlla bu baax na macha allah jamono la tombel ndax macha allah intellectuel yi ñi nga xam ne dañoo jàng xam ku ku bëgg gën a euh, am sa cofeel ci yonent bi rek gëstul livre bi nga xam ne mooy 570 poèmes yi nga xam ni Mouhamadou Abdoulaye Thiam ñëw na bëggal ka jaam ñëpp ci yonent bi ku ci dugg sa sa bëgg-bëgg yonent bi dina gën a yokk mhm. sa cofeel suñu borom dina gën a yokk mhm. ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu daal di xarit yi soppee am di jàmm ñëpp ñu daal di visiter li nga xam ne moom mooy livre bi ah, ñu gën a xam suñu waa ji sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi noonu lay dem rek si ki nga xam moom mooy nag Oustaz Ahmed saar moom it euh, ñu bàyyi ko rek euh, lan ngay euh, wax dénk nag ñi nga xam ñooy internautes yi si tënk. alhamdulilah jërëjëf sëñ Makhtar tabarakallahu di amaat contentement bu baax a baax si plateau bi di santat yàlla subhanahu wa taala di julliwaat si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dénk ñëpp di dénk suñu bopp ne képp ku bëgg a yokk sa cofeel si sallallahu alayhi wa sallam fexeel ba gëstu see téere bii ñu tuddee le sauveur mm-hmm. di 570 poèmes mm-hmm. nga gëstu ko euh, tabaarakallahu te topp ko mm-hmm. ku ko def ku ne da nga yokk sa shawq da nga yokk sa mahabba da nga yokk sa sharaf si sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf kooku nag sëñ Xaadim defe naa ni xool yëpp tooy nañu euh, si la naissance ma bàyyil la rek euh, nga daal di nag euh, tàggoo tàggoo bu dul tàggoo. macha allah tabaarakallah Mamadou Mokhtar jërëjëf El jërëjëf macha allah Ahmed jërëjëf Moustapha Rasoul tabaarakallah di sant yàlla bu baax a baax di sant yàlla bu baax a baax a baax ci 570 poèmes yi nga xamante ne Mohamed Abdallah Thiam def na ko ci Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam ku tagg rasulaay nag mm. da ngay jàppale yàlla yaa ngi dimbali yàlla mm-hmm. tu as apporté une pierre à l'édifice ndax yàlla subhanahu wa taala moo njëkkañ Seydina Muhammad wa kadalika waxey naa ruuxan min amrina mm. maa kunta tadri mal kitab wala al iman walakin jaal naa nuuran nahdi bihi man nashaa min ibadina mu mel ne dëgg-dëgg wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim hmm. siratillahi lazi lahu ma fi samawati ma fi l ardi ala ilallahi tasiru l umur hmm. moom nag dafa xaw ne loolu nag wa innaka la tahdi man ahbabta walakin llahi man yashaa ñaari aaya la yu xaw a waroo tabaarakallah boobu nag émission bi di ñëw dañ koy faram-fàccee ci poème yi tabaarakallah di sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla nañu ko muurloo mm. ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam Pape jërëjëf ngeen baal ñu àq beneen jamono asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, des temps modernes kooku moom mooy Mouhamed Abdoulaye Thiam euh, du ñu def rek lu dul euh, bàyyi ki xam moom mooy nag Oustaz Pape Hann mu daal di tëj. émission bi comme nu mu ko ubbee woon rek gannaaw bi ñu sante yàlla rek julli si yonent bi sang sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Seydi Mouhamadou Mokhtar am nañu mbégte bu baax a baax gërëm bu baax euh, sëñ Ahmed al Oustaz euh, gërëm euh, tabarakallah sëñ Xaadim Mouhamed Xaadim gërëm bu baax a baax nag Seydi Mouhamadou Moustapha ñaanal leen yal na yàlla gën leen a barkeel. yonent bi daal moom bu jeex du xew yi mm-hmm. jamono bu nekk. yàlla ngi yebal ay gaayam ñuy gën a naatal ruux yi mm-hmm. di gën a nammat ruux yi mm-hmm. gis nga ruux li àddina ndax am na ñoo xam waaye la koy leer la ka saafara mooy bëgg si ci ay façon ñaanal Muhammad Abdoulaye Thiam yal na ko yàlla yokk dëgëral am nañu mbégte bu baax a baax a baax a baax yal na yàlla sàmm suñu kóllëre ak moom euh, ñëpp kenn ku ci nekk yëg ci moom cofeel boo xam ne Rasulullah ko war ñu ngi koy ñaanal Euh, yàlla yàlla yàlla gën a ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi noonu waxtaan wàngo daañu ñëw yeneen ndax 570 la tey defe naa benn point rek la ñuy waxtaanee. daañu ñëw si Mawlid incha allah Mawlid Mawlid am nañu mbégte si Mouhamadou Mokhtar. jërëjëf am nañu mbégte maa ngi jégalu ci kàddu yu baax baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ji ma bokkaloon plateau bi ah, duñ def rek du dul bàyyi leen ak li nga xam moom mooy poème sur le euh, prophète sallallahu alayhi wa sallam ah, di jaajëfal ñëpp rek euh, sous peu de temps incha allah di leen dellu si waat si beneen émission waxtaan waxtaane li nga xam mooy mawlud nabi